taxawaay bi ci liggéey bi fii ci Moukhaddamatoul Khidma. Fallou Mbacké ñu ngi nuyu salaamaaleykum wa ñu ngi nuyu bokk yëpp di leen ndokkeel ñu nekk ñu ngi fii jumaay nañ ko baaxoo def ci àjjuma yi rek kenn ku ci xam na ne jumaa ji masul tëj nag fii moom ndaka jekk ci ndigal lañu sukkandiku ñu ngi ñaan yàlla yàkkate wér mu Cheikh Ahmadou Mountakha te mu joxe woon ndigal ngir jumaa ji ci ginnaaw bi nga xam ne docteur yi waxoon nañ ne dañoo bëgg ñu sàmmante ci sëñ bi tam xam ne am na loo xam ne ak xam la joo xam ne moo ko war ci digganteem ak njaboot sëñ Tuubaa gi nga xam ne daf sàmmale ci ñoom waaye ak jullit yëpp itam boole ci mën naa ne booba léegi nag ñu woyoon ci doon sàmmante ak loole ba ndigal jugaat ci daayira Moukhaddamatoul Khidma war a yaatalaat liggéey bi moo tax tey nekkaat jeneen ajuma joo xam tam gëjoon naa am ci ajuma yi wees na ajuma yi wees kenn kon xam na ne daa amoon nu ci daan doxee tey jii gën ko yaatalaat gën a am émili wa sëriñ bi loolu nag sëñ bi tam sàkk woon ci mboolem ñi nga xam ne ñi ngi jull si ci barab bi sàmmonteeg ndigal yi nga xam ne ñëw gërëm ñu ngi koy digle ca mooy ñuy takk masque bu ñu àgsee ba ci buntu jumaa ji itam ñu raxas seeni loxo ci buntu boobu ci buntu bi wala itam ñu laal alkosel bokk na ci itam lim digle woon tam muy bu ñu bi ci ba dugg ci bi itam ñu sorale sàppe yi nga xam ne dégg la kenn ku ne xam ne ne sàppe dafa rësaloo waaye ci ndigal ci gàttal dafa bokk ci li ñu digaloon ngir ñuy sorale sàppe li jëmañu toll nii naka noonu itam buñ jullee ba sëlmal tam bay génn tam ñu bañ am benn rayal bi loo joxe ndigal sax képp ko ante mën nga sax ba tey soo ko mooy li gën ma xam ne li ci war na ndax jëkk tam mooy da boppam mooy fexe ba nga xam ne ku ñëw da nga mën raxasu alkosal tam dañ la ma laalal nag mooy ñu ngi sàkku képp ko yaa ngi julli si nga nga fàgg ko indaale ko soo ko amul nga jësakaale bopp tey jii bu nekkoon lu ñu lu ñu lu ñu évaluer ci jamono ji muy bis bu njëkk boo xam ne yaatal nañ julli gi ci mbooleem jullit yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bu noo gisee seen comportement ginnaaw li nga xam ne jote nañ ko ci ñu waaj ngir mën a fegu ci mbas mi rawatina. waaw dafa mel ne ak lañ ci amee dafa mel ne li sëñ bi bëggoon murid yëpp dégg nañ ko wala jullit yëpp nekk nekk ci tubaay doon jullit tubaay day dégg nañ ko ndax li ëpp ci mbooloo mi amuñu benn sikk sàkk ci ne boo ñëwee ne leen ni ngeen war def danañ ko def ndax jumtukaay yi ñu waxoon yëpp jubal wàccoon nañu moom ñu ko amut tam jox nañ jox nañ ñenn ñi dañ fàtte xëy na ñenn tam ñenn ñi tam ñàkkoon ko bàyyi xel waaye ñëpp ñëwee tam mel na ne biir jumaa ji ko xoolee xam ne doo gis kenn ku takkut masque matuwaay yi moom yëpp mën na ba noppi ànd ko ta ci seetlu tam ci nit ñi tam mel na ne am nañ ci yëg-yëg ci def gi waaw dafa mel ne dañoo bégloo ci ndigalu bi daal ginnaaw julli bi gis nañ ay équipe yi yor ay désinfection liquide di ko pompé ci sijaade yi sappe yi nga xam ne fa la mbooloo mi ne woon ana jublu gi ci loolu waaw loolu tam ginnaaw sëñ bi dañoo boole woon ak autorité dëkk bi ngir ñu liggéey ak ñoom te ñoom tam ñoo waxoon tam ne loolu mënu cee ñàkk moo tax ñun tam ñu di ko def ndax ñoom lañu ñu ci digaloon mooy nañ ko def ci produit yoo xam ne diggante boo xam ne dana jege 24 heures gën gaa néew ba noppi tam dëkk produit yi wuute loolu tam yàlla dogal noonu lañ ko defee ndax yaakaar naa ci suba bi ñu gisee ci ginnaaw suba lañ ko def bi alhamdulilah dañ ko daal defaat ngir ngir lan ngir ajjuma ji kon dafa gën a xomb loolu la nga xam ne kon ni autorité yi lañ ci déggoo ndax sëñ bi sëñ bi moom li ñu digal waxtu ñun ñu bu mujj bi du bokkut ak àjjuma gi naafile ñoo ngi koy taxawal saa su nekk day jël mbooloo jamono ji nag mu gën a yaatu ana looy ñaaxee mboolem ñi nga xam ne bëgg nañu teew ci jotaay boobu waaw ñi nga ñaax daal bokk julli yëpp daal ñu xam ne noonu moom li ñu war mooy diglu ndigal rek ndax booba léegi ñu bari ñi ngi nam moon ñëw ci barab bi di naafile si bu demee ba yaatal ko nag ba ñi ñi amutoon ak ak mën a agsi itam kon ñoom nañ gën a fonkaat ndigal sëñ bi nga xam ne moom mooy digle di tere te am ndigal am mari moom ndigal la war a diglu waxtu wu ne ab jullit tam ndigal la war a waxtu wu ne ki nga xam ne mooy ay mbiram te ñun waxtu wu ne tam kon ñu ngi ñi ngi soññi daal bokki jullit yëpp daal ci loolu ñu àndandoo gën a bàyyi xel li nga xam ne moom la sëñ bi loolu la sëñ bëggal ca mooy li nga xam ne moom la réew mi bëgg ci ñun ca mooy ñëpp maase amu wér ba mën a taxawee ba ma si ba mën am wér yaram ba ba gën a mën a jaamu yàlla lu yàgg yàgg yàgg ndax ku képp koo xam ne bëgg ngaa jaamu yàlla te wér doo ko man ni nga ko bëggee loolu kon ñu ngi koy ñaaxee ñëpp daal dinañ soññi ñu di soññi tam mboolem jumaa yi ak jàkk yi xam ne nañ bi tam ñu seen waat xam at at yi ci lay dox ñu bàyyi ci xel te xam ne ndigal sañ moom benn rek la ni mu ko digalee fii moo wala ba jumaa yëpp ak jàkk yëpp